Euh, le président def na discours autour de vingt-huit minutes environ euh, discours bi nag am na ci euh, am na ci beaucoup d'émotion parce que discours tàggatoo la discours bi itamit euh, président Macky Sall def na ci un peu bilan wam wax na li mu jot a réalisé depuis 2012 dans tous les domaines pratiquement dans tous les secteurs wax na ko ci wàllu taux de croissance yi nga xam ne à peu près 6 pour cent la woon Euh, bon Covid bi moo ko perturbé mais gis nañ ne euh, les perspective maanaam li nga xamante ne moom la ñu séentu ak gaz beeg pétrole bi dina dem ba 9 pour cent de taux de croissance président aussi wax na ci wàllum infrastructure maanaam lépp li nga xamante ne euh, def na ko ci fànn bu nekk moo xam ci agriculture la moo xam ci pêche la moo xam ci élevage la ci li nga xamante ne itamit mooy dem beeg dikk bi transport bi muy le TER muy le BRT muy li nga xamante mooy yoon yi nga xam ne euh, muy autoroute yi muy route muy euh, yoon yi euh, yokk na ko yokk yoo xamante ne wax dëgg am na solo ci bi ñu amee indépendance bu léegi donc am na daal ay jéego yu bëri yoo xam ne def na ko ci wàllu réalisation ci wàllu koom-koom wax na itamit ci li nga xamante ne foofu sax la jëkkee mooy jafe-jafe yi nga xam ne suñu démocratie amoon na ko euh, xëy na am na ko ba léegi wante gis nañ ne euh, fitna bi wàññeeku na euh, te loolu ñaawlu na ko mais li ko waral xëy na mooy euh, peut-être acteurs yi dem nañ boo ku ci ne sa intérêt nga jiital fàtte ne am na itamit ay charte am na ay principe yoo xam ne moo tënk démocratie ci principe yooyu la ñu war a tënku bu fekkente ne mais boo ko doon aujourd'hui on est à la fin euh, on va bientôt Euh, la la la la la page euh, de la présidence de Macky Sall boo ko doon noté tey euh, lan mooy doon sa appréciation. waaw président Macky Sall am na beaucoup de réalisation mais euh, ci li nga xamante ne lañ ko doon noté damay gis ne euh, am na euh, lu mu jéego yu bëri yu mu def ci wàllu infrastructure te loolu dañu gis ne c'est dans la continuité maanaam li nga xamante ne président Abdoulaye wadd def na ko ci loolu la wéy. kon mën dañ ko rafetlu dans l'absolu mais gis nañ ne itamit président am na ay. ay erreur d'option yoo xamante ne man noonu laa ko gisee euh, première erreur d'option bi mooy dafa nekk sur une perspective développementaliste maanaam dañu jàpp ne xëy na euh, li nga xamante ne mooy koom-koom bi ak économie bi moom la ñu war a gën a jiital au détriment des droits et libertés kooku première option stratégique la euh, erreur stratégique boobu lay njëkk a relever alors que dañu war a dox sur nos deux jambes maanaam def ma lépp lu ñu mën ci wàllu koom-koom wante itam bañ a fàtte démocratie ndax démocratie mooy laytaay bi démocratie mooy loo xam ne euh, am na solo beneen erreur stratégique bi mooy euh, le fait que mu ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression donc da ngay gis ne euh, dal ci kaw kuje gi jël doole nguur gi dal ci kaw kujje gi loolu dëppoowul ak démocratie te euh, loolu euh, day andi ay jafe-jafe te wax na ko ci bi muy door euh, discours am loolu day tax bu benn moment dootuñu am arbitre maanaam sart yi nga xam ni moo war a tënk pomi bu fekkee ñi nga xamante ne ñoo war a sàmmonteeg ñoom ndax ñoo yore nguur gi dañ koy salfaañe ñi ci des féete ci kujje gi ñoom it duñu sawar duñu nangu topp li nga xamante ne mooy ci euh, dogal yi ñu jël ndax dañu gis ne dogal yi dafa ànd ak par parloo beneen option stratégique bi mooy ci wàllu aménagement du territoire parce que dañu gis ne infrastructure yëpp dafa nekk ci axe Dakar Diamniadio jas maanaam génnuñu dans les biais de l'aménagement colonialiste du territoire c'est-à-dire que ville yi nga xam ne ñoo nekkoon ci côte bi maanaam Dakar Saint-Louis Rufisque gore moom lañ doon développé ci yoon boobu ci ci axe Dakar Thiès bi donc euh, ci axe boobu lañ doon euh, développé ville yi après par le chemin de fer maanaam saxaar si ñu jël euh, produit yi nga xamante ne mooy gerte geeg yooyu dal di koy yéegal ak saxaar si mu jàll ci ville yooyu ci port yi yi ñu yóbbu ko euh, bitim réew ci euh, ci tugal donc loolu génnuñu ci billet boobu alors ko waroon nañu am par exemple ci biir réew yi euh, ci biir gox goxaan yi Kaolack Fatick Ziguinchor Kédougou maatam foofu yëpp waroon nañ am ay pôle de développement ba nga xamante ne nit ñi nga xamante ne dañu na waroon a yéeg si ba Dakar mën a yem foofu nekk ci seen gox wala seen goxaan nekk fa am fa loo xam ne mën nañ ci jàpp mën nañ ci tedd wante bu fekkee ne ñëpp dañu war a riir si ñëw dakaar dafay indi pëccoxoo boo xam ne nekkul ne euh, yombal dem beeg dikk bi moo koy saafara te loolu dafay indi beneen perspective ci wàllu politique publique moom la ñu woowee le référentiel maanaam ban gis-gis lañu am euh, ci problème bi te gis-gis bi ñu am ci problème bi daf koy day lëkkaloo ak saafara yi nga xam ni ci la ñu euh, ci la ñu nar a euh, moom la ñu proposé ngir dal di faj loolee di problème yi donc boo gisee euh, perspective yooyu laa gis ci ci erreur stratégique u président Sall beneen erreur stratégique bi aussi mooy ci wàllu après aménagement du territoire ci wàllu industrialisation parce que industrialisation transformation des produits primaires loolu moo nar a moo naroon a gën a yokk li nga xam ne mooy xëyu ndaw yi mais gis nañ ne am na ay jafe-jafe yu bëri ci wàllu woowu donte sax am na ay ay kuréel yu mu samp wax na ko trois fpt wax na DER euh, wax na kuréel yu bëri wante euh, yaakaar naa ne entrepreneuriat bu ñu ko buggee gën a dooleel euh, dañ ko war a tasaare ci réew mi yëpp avec des unités de production ak ay industries yoo xamante ne fu nekk dana mën a am ay këru liggéeyukaay yu bëri yoo xam ne jeunes yi danañ fa mën a liggéey danañ mën a am lu suturloo te loolu loolu mooy mooy doxal économie ba noppi day tax euh, du ñu am une croissance extravertie maanaam croissance boo xamante ne euh, entreprise yi nga xam ne ay entreprise yu yu entreprise yu bitim réew la ñooy tiire suñu croissance ba nga xamante ne sénégalais yi du ñu yëg croissance boobu euh, beneen su ma foofu <coughs> beneen aspect bi ci wàllu ci wàllu gouvernance présidentielle mooy dund gi nee na euh, mi ngi def à peu près cent milliards di soutenir dundu gi mais am na ay jafe ju jafe-jafe yu bëri parce que tey boo gisee euh, kilo ñebbe mille cinq cent lay jar pratiquement jën kenn gisatu ko donc fi nga xamante ne euh, ñi néew doole fa lañ doon njëkk gën a jàpp pour mun a dund loolu yëpp dafa mel ni dafa nasax donc c'est comme si dañ leen doon génne euh, mburu mi am doon ci euh, seen li nga xamante ne moo nekkoon li ñu dundee dañ leen ko génneel ci seen gémmiñ donc loolu mu nekk lu metti boole kook léegi nag peyooru courant beeg yokk et cetera ce qui fait que ay jafe-jafe yu tar